mi ngo muy lu am solo saawalof ba tey chef d'accusation yi nga xam ne nag ñu ngi koy toppee ki nga xam ne mooy Ahmed Suzanne Camara di offense au chef de l'État ak acte ñett la acte de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République ak it nag et à inciter les citoyens à affronter les lois di ñett chef d'accusation yu yu yu lourd mëne yu lourd mënees ñu ko jàppee loolu Euh, ginnaaw loolee nag lépp ñu jël ko gàll ko ci ndodd tey déjà balaa ñuy dugg foofu naka nga gisee kàddu yu Ahmed Suzanne Camara keroog ca Seneweb ba waaw ah, damay jëkk a ñëw ci Thierno Bocoum di moment que mu jàpp ne insulte la mm-hmm. noppi daal ne des mm-hmm. mm-hmm. malin le malaise s'installe quand les insultes les insulteurs l'insulte une ah, moom mu jàpp ne ay saaga la même ñii buñ doon ay saaga kat xanaa dafa bëgg war a bokk ci réew moo xam ne dootuñ fa saaga mu prôné loolu dindi mm. jëf ji doog a daxa wax te loolu amul gisu fu euh, kenn saaga une fois mu jàppe ko saaga léegi nag man benn question balaa ngay dugg euh, euh, dafa am ñuy laajte ba xam da ngay fen saaga la waaw mm. maa ngi koy waxaat fii te waxoon wolof la de mm. xam ne <laughs> maanaam mais bëgguñu am président fenkat tamit léegi nag boo taxawee ci réew moo xam ne président boo xam ne dañ ko fal à 54 pour cent yu yàggu euh, yu hmm. jaay nga taxaw giñ ko ne waxul dëgg comme ni nga koy waxee. Hmm. léegi loolu man bu demee ba am man mu wóor ma ne président du waxkatu dëgg daf damay am obligation. jàmmaarloog moom. Hmm. léegi nag man moo tax beneen chef d'inculpation bi am muy inciter nit ñi vers. Hmm. noo ko waxeeti. man ah, boobu laay inciter les gens voilà mais nag xam nga man saa wolof laa fii laa toog. Hmm. fen bu fekkee nit ki da koo jëf <coughs> nga wax ko ko mën ko prouver gisuma ne dañ la war a jàpp. ñaaw na wala naa nga mën nga am lu gën a rafet loolu. beneen bi mooy. ci comme ni niñ ko waxee. Mhm. wax na fii yeneen am na leneen lu mu dugg ci biir man seetaanu ma ko. Mhm. mais moo tax beneen chef d'inculpation boobu laa gën a jàpp beneen bi mooy ñi mu taxaw ne dañ leen a nu mu euh, lu mu wax ci Fulbert Sambou ak mais pour man bu fekkee ne pour noppiloo nit. Mhm. ci politique lañu nekk am na infraction yu mu def bële bàyyi na ko fa am na yeneen plainte yu jóg. loolu dafa war a activé wu ñu topp loolu loolu mooy wax ji mhm. mais nag taxaw fii naan fen saaga la moom ku koy xaar ci man du ma ko def du saaga mhm. man taxaw naa ne Macky Sall waxul dëgg donte ne waxuma ne day fen taxaw naa ba tàyyi wax ko ci kii mais problème du question ma maanaam est-ce que euh, dikkeewuma sax ma wax loolu problème man bu ma nee ma xam te Macky Sall daf ko doon def ma man koo téye ne fii ak fii la ko def léegi nag autant donc Euh, Suzanne Camara ba xam am na suffisamment des preuves yu mën a dëggalee nag président Diomaye li mu wax du noonu. bu mhm, dëgg. Mhm. te jàpp naan loolu mënu ko. amul capacité mais mu ñàkk a nangu ni. Euh, loolu it beneen problème la loolu tamit loolu tamit beneen problème la. ci ci ci réew bi ku ñu fal euh, élire ko ak peuple boobu nga daal di wax loolu tamit mooy pour man xamadi du ma ko jox sax garaatu réewande parce que réewande garaat la quand même. parce que mm. réew dafa am yooyu boole doo ko mën a réew. <laughs> mooy benn da ngay am xaalis boo amul xaalis mën a doyloo li nga am di ko dundee. Mm-hmm. maanaam doo namu daray kenn ba pare teg ci am xam-xam doo ko réew mais mënoo koo jël teg ko ci galaatu réewande dafa xamadi mooy koo xam ne xamut beneen bi mooy man li ñuy wax ci côté euh, dof wala naaga loolu justice moo ko war a wane maanaam justice ba tey bi ko teg moo war a xool ndax ki yemb na wala yembut. léegi nag euh, pour man nit ñaanal ko kii euh, njéggal wala yu demee noonu bu fekkee ne dafa fote man loolu gisuma ñaan yëggal soit ñu nangu ne li mu def du noonu ñu ne nañ ko bàyyi wa ilaa ñu nangu te man dégg naa ci yeneen yoo xam ne loolu mën naa tax mu yóbbu nit euh, kaso ñu sanctionné ko teg ko ci yoon mooy li nga wax ci mm. déjà défier chef de l'état ne du sa président mm-hmm. di inciter nit ñi ci mm-hmm. yu demee noonu mm-hmm. mais bu demee ba nekk ci ci baatu fen wax dëgg yàlla mu am ay avocat yu ko taxawal damay jàpp ne jàpp gi te jàpp na bu ñu ko jàppee franc bu delul leneen lu ñu mën a toppee wala loolu franc grand lay jël amee avocat yu am xarañ dégg làkk yi dañ koy acquitté moo tax kan man foofu damay wax ne bu dee jàpp gi dafa am jàpp pour jàpp bu dee loolu rek lañ ko taxawee wax mooy man baat bi mu wax te mënu ko mënu ko justifier muy taxaw taxaw tey njiitu réew mi wax li mu wax mhm. gis na donc kon la lañ war a gën a dem waxul dëgg gi lu tax nga ne waxul dëgg lan moo tax waxul ñu preuve ci lii mooy waxul dëgg léegi nag bu fekkee ne président dafa wax dëgg nga taxaw ne waxul dëgg mhm. fa foofu la mbir mi nekk insulte la mhm. <laughs> maanaam bu fekkee ne président bi wax na dëgg ba noppi ci li mu wax moom moo fekkee moo xam nga taxaw wax ne waxul dëgg tuddee ci ni nga ko waxee. Mhm. loolu insiste ba pare tuumaal te président am na lu mu waxoon. Mhm. ne woon na kenn mënuma santé loo. Mhm. benn nga ñëw taxaw wax dara. Euh, pour yàqal ma euh, sosal ma ak yu demee noonu. te loolu euh, loi bi moo koy gii dañ lay daal di punir diffamation fa la nekk wala nga wax loo xam ne nii. dëgg la te da ngay jàpp damay naqare jàpp ne sax du ko naqari. ndax boobu danga nga ko rendre service. mu ànd saafara maanaam mu mu mu dëngoon jubbantiwaat boppam wala nga daal koy wax ci njabootam moom mu jubbantikoo kon loolu moo dafa leer beneen bi muy euh, diggante président jomaay ak président Macky Sall dafa am différence bu fi am. comment xam nga Macky Sall tey manoon nga taxaw wax li ngay wax jàkkaarloo ne Macky la ñu wax la nga taxaw ne l'opposant laay waxal te kenn du ci dindi dara parce que moom moo tànn wéy di des ci parti politique di mm-hmm. tirer les ficelles comme ni mu ko tàmma defee mm-hmm. comme ni ko seex bi waxee mm-hmm. ñu jox la suñuy 9 millions maanaam pour nga bañ a namm dara ndax boo nammee dara mën ngaa dugg ci ger lekk loo warul lekk yow bi nga koy def di ko waaj diggante bi bu fi France amoon contrat lu mu soxla Sénégal ak Canada kan ngay privilégié. France ah kii euh, Fatima Kiré mi ngi fii ci biir kër gi am beneen contrat bu ko waa euh, sama ñaareel ba fa mu nekk 3 bais di amal mu digal digal ko ñoom fii ak ñetti weer mu bàyyi. saa wolof ñëw fi war a indi benn publicité wax ak Fatima Kili dama bëgg def nangam ak nangam valeur bu 5 millions te moom nee na day dem est du ko neexale patron am mu jëm. moo tax ñu teg la ci condition yoo xam ne waroo namm dara. Mm-hmm. ginnaaw war woon a namm dara ñu teg ko man damay euh, wax à ce que prochaine ensemble bi ñëw. Mm-hmm. ñu buraalaat loolu Macky Sall moom. war nañu taxaw foo xam ne li mu def déjà man pour man sax haute trahison la. Mm-hmm. parce que buñ ko bu ko buñ ko Mm-hmm. parce que tey suñu ay euh, service secret li ñuy dajale yëpp ci peeg peeg ko ci wàllu information ci feneen ak feneen ak feneen ay point stratégie wala nàngam ak mm-hmm. nangam moom xam na ko li ñu ci xam sax dama jàpp ne président mm-hmm. Diomaye xamagu ko ci wala loolu laa jàpp xamagu ko ci parce que lu yàgg ci euh, ndaw lu yàgg ci njaw di njaw kon loolu nga xam ne maanaam moom la xam ba xamaatoo ko loolu waroon naa tax moom du namm dara dund ci ngor. Mm. mais mënu ko continuer di tirer les ficelles comme ni ko Mimi Touré waxee. caabi ja sax moom Amadou Ba nekk na candidat mënul jaar foofu def fa conférence wala nang ku fa def dara wala ku wax ci ñoom ñoom la neex beneen bi nag mooy Suzanne moom man dama jàpp ne euh, fulaam des na ndax gisuma lu ko nekk ci APR jariñ. Mm-hmm. maanaam risque yi mu ciy jël yëpp. Mm-hmm. tappale yi mu ciy jël yëpp di wax te li muy wax xamu ci dara ak yu baree bari yoo xam ne. bu doon dafa feeñ ci moom wala feeñ ci njawootam bu boobaa ñëw man dama yaakaar ne ay bokkam dafa yàpp ay bokkam loolu mooy mhm. li ma ci wax mais li ma gaa yi wax nii loolu laa leen wax fen du saaga fen la ju nit di def mooy mhm. comme lekk mhm. comme naan comme sàcc comme nangam amoon nañ président taxaw di wax lu dul dëgg kay président Diomaye gisuma ko ci te naa ne lu mu wax dëgg la ku dëgg la loolu lay taxaw mais Macky Sall wax nañu kàcc waxati kàcc sàcc ñu far ay sàcc leneen ak leneen am suñ demee ba nit ñu jàpp ko mu taxaw naan moo ma doon doxloo ci ci ci ay mission secret wala nangam ak nangam mais loolu c'est à démontrer mhm, te jàpp naa ne Suzanne Camara mënu ko démontrer su ko mënta démontrer nag dugg na ci buntu saaga ñi ko bëgg a boole ni détenu politique la par rapport ak taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci <laughs> affaire <coughs>